aousubillah bisimillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah alhamdu wa shukru ma an lillahi ala nabi wala di abdillahi maha balaay wa maha amradi wa biri daatan xaaduli ahradi hëbli maramiya ya wahaabu doona anan wal takfini bi rasulillahi kulla bala wa anshiraaril xalqi wa razaya wal jinna wa sheytaana wal balaaya sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasit balaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu seetaan ñi ngi amaat mbégte bu kawe mbégte bu yaatu mbégte mu rëy ci bërëb bu tedd bii nga xam ni tey jii fii lañ leen di defale émission bi nga xam ni mooy xew xew diine ji xew-xew bu mag am ndax xam ngeen ni weer wi mooy weer wi nga xam ni sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ca la rañaane woon ca la ko sunu borom defale woon loolu nga xam ni xamlewaat na ci ni kenn du moom moo tax sëñ Tuubaa daan ko wax naan waxoon ko ni que wa huwa akmalul wara xalxan waxul xan ba tax na ñu amaat ci geneen tawféex du ma ni sax ñun murid yi waaye dama naan jullit yi wala ma ni sax humanité gépp amaat ci tawféex Cheikh Mohamad Fadal ibnu Cheikhul Xadim gane ci àddina yàlla defal nu tawféex nag ñu toog ci këram gi nga xam ni fii la toog di sëñ tubaa ba liggéeyal sëñ tubaa mottali ko jumaa ji nga xam ni magam ju tedd ja moo ko tàmbali woon kon tawféex googu ñu ngi ciy santaar sunu borom bu baax di tàmbali nag nuyoo beeg bi ni ma ko ubbee ci fadilatu cheikh Mouhamadul Muntaxa ñaan sunu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér ak mucc ak njaboot cheikhul xadim yi toog fi moom yëpp rawaate na jëwliñam Cheikh Sidil Mokhtar sëñ Sidi moom sëñ tubaa Cheikh Abdoul Ahad jagleel nuyoo ak ziar ki nga xam ne mooy boroom kër gii ñu toog tey di tey jii di sëñ Aboul Baraka moom Cheikh Mohamad Fadal wuutu magam yu tedd ya Cheikh Mohamadul Amin mi jëkk doon sët sëñ Touba bi nekk ci bopp yoon wi gannaaw Cheikh Saliou Mbacke wuutu Cheikh Mohamadou Moustapha Falilou mi nga xam ni moo tàmbale woon xew-xew bii ci ndigalu sëñ Fallou ñooñu bu ñu leen tuddee tudd cheikh Mouhamad Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ni mooy seen ndaw waaye di ndaw loo xam ni ndaw lu sawar ndaw lu baax ndaw lu mën a yaatal ndaw lu mën a jotal ndaw loo xam ni ku nekk kilifa gu nekk bëggoon nga tey ji muy sa ndaw ñaanal leen sunu borom yokk leen te musal leen ñaanal ko njabootu cheikh Mouhamad Fadal gi yëpp njabootu cheikh Abdoul Khadir gi yëpp rawatina sunu sëriñ sëriñ cheikh ibnu cheikh Abdoul Khadir nuyu nag l'islam gi yëpp. ndax weer wi weeru jullit yëpp la rawaate na nag tarixa suufi yaa xam nga bokk ci kër Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani kër Cheikh Ahmad Tijaani ak ñi nga xam ni sax dañ ni ay kuréel lañu yoo xam ni tënkuñu ci tasawuf waaye di ay jullit ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jëkkanteeg waxtu wi nag ndax dañoo amaat gëneen mbégte gannaaw mbégte bi ci bërëb bi ak mbégte mi ci weer wi ak xew-xew yi ci am dañoo amaat mbégte suñu ay soppe di suñuy sëriñ di suñuy xarit di sama jëwriñ Cheikh Mamadou Fadal sëñ Fallou Gala Silla ñu yàgg lool mu baax lool di ku mën a jotal lool moom it liggéey bi itam mu ci def liggéey bu kawe njort ñu def ko ci royukaay mu seq ak moom jataay bi ak nag sunu rakk ji nga xam ni dañ koy tiitaroo dañ koy sagoo di ko ñaanal saa su nekk sunu borom sàmmal nu ko yokk ko te musal ko ndax liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal sëñ Tuubaa ci gën koo xamle gën gën a leeral liggéeyam gën a leeral itam pas-pas bi nga xam ne noonu la ñuy ànd ak di sëriñ Gana Messere Maxtaar kon ñooñu laa seqal jataay bi di nuyu mbokku téléspectateur télévision Futurs Médias yëpp waaye nag ñii ma seqal liggéey bi itam dañu bokkaat beneen ëtt boo xam ni kenn du ko tudd génne ma ca muy télévision Lamp Fall Lamp Fall maag sëñ Fallou Galas Sylla mi daanaka ñoo ko tàmbalee woon ca rajo ba ba tey jii ñu ngi fii mu yegg tey jii mu yegg fa kon ñu ngi ziar bu baax sunu jëwliñ yooyu président Youssou Ndour di ko nuyu di ko siyaare ci bés bi xew-xew bi xew-xewam la ndax digganteem ak njabootu Cheikh Mahmoud Fadal waaye ziar sunu jëwliñ nag président Alioune Thioune mi nga xam ni moom it jataay bi ñoo ko bokk di ko defandoo moom it ku nekk xam digganteem ak Cheikh Mahmoud Fadal kon du def lu dul rek jox eh, sëñ Fallou Galass Sylla mu waxtaan ndax maa moom tey ñooy dalal sëñ Gana Messere Maxtaar kon sëñ Fallou bu nuyoo nag ñu jëkkanteek waxtaan wi nga xam ni nag moom lañuy defaat ci Cheikh Modou Fadal te xam na ni itam euh, naan guy dolli man rek la waaw kon sëñ Fallou dafa dal bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin laa hawla wala quwata illa billahi alil azim wan fil wabaa wal balaaya kullaha hanha wa tayyib surbaha wa aklaha yaa faadilan fadalahu alxalaaqu yaa man bihi faaraxani al imlaaqu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Abdul Xaadir maa ngi lay nuyu di jaarale sama nuyoo ci sa nuyoo bu mat bii te rafet di nuyu sama jarbaat sëriñ Gànna Mesere Maxtaar di nuyu borom ëtt bi waaye tàmbulee ko ci kim ñu booleel di sëriñ Ahmadul Badawi mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu communication ak culture ci màggalu Kazu Rajab nuyoo boobu bu ci jógee day jaar ci sëriñ Abdul Fatah mi nga xam ne moo yore seen kàddu di ko bëgg sëriñ Falilu jàll nag ci sëriñ Abo Baraka ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal di sëriñ Touba di maam Cheikh Ibrahima Fall nuyoo bi jàll ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha boroom yitte ju kawe ji di ñaan sun boroom yàggal ko fi lool te doole ak wéram nuyu jëwriñam di Murid Saadix di ku jàpp njaamuram te nangoo liggéey di sëriñ Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadir di xaritu borom jëwriñu kër gi di magam. Mhm. nuyu itam Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne moo yore kàddu yoon wi. di nuyu turandoo yi sëriñ Fallou yi muy daayira turandoo bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mhm. Eh, di nuyu itam daayira sët yi. Mhm. Eh, ñoom ñëpp maa ngi leen di jaar. di jaare boobu ma jaarale ko ci loxol sëriñ eh, Cheikh Colle. ak sëriñ maam Ndam Fall. ak mboolem ñi waaw ak ñi ñu ko bokkal ñëpp nag di nuyu Sénégal gépp di nuyu yoonu murid wépp sëñ ji li jërëjëf jërëjëf sëñ Fallou euh, nuyoo bi mat na macha allah euh, kon ñu jox euh, sëñ Gana Messere Maxtaar mu nuyo tey nag li ñu war a waxtaanee ci sëñ Fallou li ca jiitu mooy murid saadix waaw sëñ Fallou moom murid saadix la woon. te loolu incha allah dana feeñ ci biir waxtaan bi sëñ Gana bisimilah. wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaka sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba li mu naanal lislaam yëpp màggale ko ànd ko ak mbooleem njabootug Cheikhul Xadim gi yëpp ak mboolem kilifa diine yëpp ak mbooleem jullit yi di nuyu Serigne Abul Baraka mi nga xam ne moom la ñu nekk tey ci ëttam fii ci kër Cheikh Mahamadul Fadal nuyu njaboot sëriñ Fallou gi yëpp di nuyu mboolem taalibe yi nuyu sunu kilifa yi nga xam ne ñoom lañu ñu bokkal jataay bi Serigne jili Abdou Khadir Niang di ko ziara bu baax moom it di ko jaajëfal di ko dollee ñaanal bu baax ak sunu nijaay Serigne Fallou Galas Sylla ñu jël suñu nuyoo tënk ko ci ginnaaw seen nuyoo rek incha allah. waaw dañuy sof rek junj naa sëñ Fallou lan la lan la ñu mën a wax nit ñi ni lii moo tax ñu mën a taxaw waat ni sëñ Fallou Mouride Sadiq la sëñ Gana. waaw ah, jërëjëf sëñ Abdou Khadir jërëjëf mbokk yi xam nga. murid saadix day aw melo woo xam ne jëmmi sëriñ bi moo ko jàngale te benn bu ci nekk boo ko toppee bu ca sëñ Tuubaa waxte boo dajee ci yow murid saadix nga bu ci nekk sëñ Fallu na ko loola it li tax mooy sëriñ Tuubaa ci mbindam moo wax ne sifaatu saadiqin muridin bi ixtisaar arbaatu nadamtuha aw faxtiraar dafa wax ne melokaan yi nga xam ne mooy tënk ab murid ñeent la yaxal naa ko ngir bañ ko woru bañ ko woru nag moo tax ma def ko ba ca jëkk nag ba mu ca jiital mooy asidqu fi mahabbati cheikh abad muy bëgg sëñ bi bëgg sa sëriñ su mam tasaalu amri yi ay suwarat ba ca topp mooy jëfee ndigal ba ca topp mooy tarkul intirad mutlaqan walaw bi batinin alayhi fi ma qad raw te mooy bàyyi gaaral te mooy dingat ñeenteel ba wa maahu salabul ixtiyaar li husni zannihi bi la inkaar ñeent kon day mel ni dafay fondement bi nga xam ne ci lañuy teg ak murid sadiq bi ci jëkk ñu wax mu ne cofeel cofeel la sëñ bi laltaay lu tax sëñ bi wax ko sëñ Tuubaa dafa wax ne fal xob xayru maa li shaxsin wuhibba ne ne lépp luñ may nit ki lu mu rëy rëy doon ko ne dañoo jël asamaan ak suuf duy ko wurus ak ngalam ba mu fees mu def ci sa xol nga am cofeel ci sa sëriñ moo ko gën kon cofeel dafa am am doole boroom xam-xam yi di wax ne al mahabbatu hiya asaasu taa maanaam cofeel mooy fondement ak topp nga xam ne ngir nga mën a jëf dara faw am lu ko jiital te moo di ak cofeel te naa cofeel googu nag gis nga Cheikhul Xadim li mu liggéeyal yonent bi li mu rëy rëy li mu ko tagg li mu rëy rëy fi mu jaar li mu rëy rëy lu ci nekk day wax ne li ko sabab lenn li mooy bëgg wallaahi wallaahi ni ila matxi nabi xubbu zaati wallaahi day mel ni cof yàlla moo tax loola lépp mu mën ko caa hmm. daa ni li ixdaami nabi xubbu zaati wallaahi nga xam ne kon hmm. cofee la ko yóbbu woon ci tagg bi cofee la ko yóbbu woon ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallaahi cofee la taxoon it lépp lu war a tàbb ci biir xolam hmm. ñu di ko bëgg ci alal wala ñu di ko bëgg ci lu mu doon. moom jëndee na ko bëgg yonente bi. sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. feeñee ci biir ay waxam maxat mahabatiyal muxtaara. sayyidina bil maghaniya wal ahlina wal walada wallaahi dammi wa ahli wa awlaadi fidaa'un lahu abdan xadiman maskaniya sanada hmm. cofeel googu nag. est-ce que li tax sëñ Fall bi murid sadiq. Hmm. mooy xam nga bala nga nekk ab murid da nga nekk nit nekk muslim nekk muslim. am nga am yàlla. tax ñu naan al muridu wal muminu muslimul muhsinu alladi laa yuridu si amarbotula mm-hmm. fi kulli aqwaali wa afaali mm-hmm. ci jiitu mooy faw nga nekk aji gëm yàlla mm-hmm. muy iman nekk ab jullit muy islaam nekk aji kuy rafetal muy lexsaan nga xam ne muumin muslim muhsin mooy nekk murid waaye walaa yuridu si amarbotula du bëgg lu may ngërëmul yàlla loolu de sëñ bi wax Mhm. indil muridu laa yuridu abada xayratul rahmaani aysu asada te lay tax nga mën koo nekk mooy ba ca jiitu mhm. mooy jaayante mhm. sëñ Fallu dafa jaayante sëñ Tuuba dafa jaayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi jaayante ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tubaay jaayante ba muy jaayante. dafa jël wane ne ubaayi xon yow ma rasulal Mustafa bi xidmatin as'alullah boo fa jaayante boobu sëñ Fallu du ko def lu tax mooy sëriñ bi ci boppam. li mu ñëwee te indi li mu yor. moo leer leen mooy leeral la boppam li ciy tax a jot lu mu doon. defe naa jotaay boobee mu nga amee woon ca Thiel. ca ba mu wooyee ma Massamba. ak Cheikh Mamadou Moustapha Karim. sëñ Mor Roqaye Bousso ak Cheikh Abdoul Fadal. loola it tey la lay xamal melokaanu murid googee ba ci jiitu. muy jaayante sëriñ Fallu dafa jaayante. mooy doxeewul rek sëñ Tuubaa mhm. waaye lam séq ak moom ci wàllu way jur. da ko jël jaay ko seen Touba. nga xam ne kon ba mu ko jaayee ba mu lew ko doom mu moom ko. Hmm. mu nga xam ne moom nunguwul a am dara nunguwul a desal dara. Hmm. ndax almuridu man laa yemli shay wala yemli ko shay. Hmm. mooy ko amul dara moomul dara. ginnaaw ak njureelam la am jaay ko Serigne Touba. sëñ bi nungul ko njëg gi ba noppi nag. ba mu lew ko donn mu jëlaat njëg ga jébbalaat sëñ bi nag. loolu kon wane na te loolu mbir mi boppam. yaa ayoo seyxu nafisil murtaja. yaa fatihat ma kaana qablu murtaja bi'atu bu nuwwati bil irada lakum li koy awza bi xaxaada min ba'di ma staraytumuha minni la mm. ahdituha lakum bi xëy xoola bi mu koy tàmbalee rek li mu ko njëkkee mooy yow sang bu bi mm-hmm. <laughs> bu riche bi bu yaakaaru bi mm-hmm. yow mi nga xam ne mbooloo nu tëju woon yaa ko ubbi ndeysaan bis ni ki tey man Mouhamadul Fadal mm-hmm. jël naa li dox sama diggante yow di njureel jaay ko jënd ko ak taalibe mu al iradatu sadiqa ginnaaw bi nga ko jëndee ba moom moom ko na nga xam ne maa téye sabak njëg mhm. maa la ko joxe addiyee nag bi xëyril man ni bi xëyril man lu ma ca topp di ci dara wallaay ce que est-ce kon loolu mooy moo ah, jiitu mooy joxe gi loolu day nuyu sëñ bi ba mu naan fee itam bi laa sukri rek waaw loolu gis nga na ko joxee wallaay wallaay léegi loolu ba mu amee it mhm. ñu ne la kon cofeel mhm. moom mu waxal boppam ne xob bi la ko dëgër yuux nii am xob bi si wax bëgg gi ma bëgg Serigne Touba man Cheikh Abdoul Fadal mhm. moo fees ci sama biir xol ba bëgguma leen kon li Serigne mhm. Touba ne woon bëggatuma dara ngir Rasulullah mhm. Serigne Fallou bi dana may bëggatuma dara ngir Serigne Touba waaye nag gës daadu fi kulli xiine waxtu wu ne fraction seconde bu traversé bu ne sama cofeet ci Serigne Touba di daw yokku ci loolu motivé ko ba tax mu ne saf ko du ma ay dox bil xadimi farle dara léegi sax yëmatuma ci di di bëgg sëñ Tuubaa rek di ko jàppee ne cofeel la. Mhm. waaye ni ni mu nekkee farata. ci mhm. man mooy ni farata yi doone farata. Mhm. gàllu ci sama loos. noonu laa gàlloo cofeel gi ma am sama sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa mu nekk farata ci man ba bu ma tuureeg rongooñ mu sotti ko daal ni sama dënn cofeel googoo ko waral. kon da lay woon cofeel bi jiitu di point bu njëkk boobu moom la def. loolu waykat ba doon wax sëñ Fall ba mu koy way ba mu koy wax ne. aw yoonu làmp soobu di muridun saadixu am ci sëriñ Touba cofeel gu rëy waaye nag seey ci Serigne Touba ba mel ni sukkër su tab bi am ndox naat ba mel ni ab dër nga xam ne kon dafa yor aw yoonu làmp soobu yoonu Cheikh Ibrahima Fall kon cofeel googu moo ci jiitu ba ca topp mooy imsaalu amri yi mooy jëfee ndigal nga xam ne ndigal amul science sëñ Fallu lu mas na xott ci noppam sëñ Touba bëgg ko defal na ko li ci nit gën a mën a teg bët teg ko ci sa bët muy jumaa ji mën nga cee teg sa bët kamaa xat kun tutta amul yoqat yi ma ni nga ko bëggee woon santenu ko ni defee nañ ko ni moo tax ba mu noppee mu dem ndindi julli timis jot ñu julli la so lamp fal takk dafa wëlbatiku bi mu jullee ba sëlmal jox xar bi sorol bi lan la wax rusloowul la rusloowul la kon li ko sëñ bi waxoon ne fi la ba ca topp mooy ñetteelu li tax mu cofeelu murit gi saade man mooy tarku ixtiraat bàyyi diingat mhm. sëñ Fallu moom dane moom amut moom lépp rek sëñ bi lu doom ji bëgg a doonu baay du cheikh bëgg a doonu cheikh dafa tàbbi ci biir sëñ bi lu sëñ bi wax ba ci salabul ixtiyaar mooy bàyyee ko sak tànn kon bëggu sëñ bi du bëggam kon ñeent yi daal bu ñu ko tànnee mooy tegtal ne sëñ Fallou mooy murid saadix macha allah sëñ Fallou mooy murid saadix daan ci ñëwaat bu baax ak euh, sëñ Fallou Galass euh, Sylla bi di santaat bu baax mbooleem euh, ñi ñiy seetaan seen télévision Futurs Médias santaat bu baax sëñ Abul Baraka di fàttali bés bi nga xam ni bésu lislaam gépp la ni ko waxee woon ren jii nag mu war a dëppook àllarba euh, fukki fan ci weeru mars bi nekk kazu rajab kazu rajab euh, ñu àllarba nag mooy nit yaag juróom benn jë dëmmal nit yaag juróom ñaar yi nga xam ni ca la sallallahu alayhi guddi googu la rajaanoon sëñ Fallou Garas dañuy sof fii euh, sëñ Gana Baye mm-hmm. Cheikhul Khadim waxaat ba tey ni Touba li abdil muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi xobbin aw hadiyaati eh, sëñ Gana indil na nu ba tey melow murid saadix ci cofeel gi gis nga cofeelu sëñ Fallou lim ko lim ko jaraloon ak ni lim ci def indil nañu ni itam junj na tuuti ci ci xidma gi ndax jumaa ji moom xidma rek junj na ndindi itam waaye xidma googu am na yeneen yoo ci war a indiwaat ñu sogaa ñëw ci hadiyaati gi itam hmm, Eh, jërëjëf eh, sëñ Gana eh, fi mu tàmbalee ci indi ci sëñ Fallou ci portaleem te mooy bëgg sëñ tubaam misaal ko ci ni sëriñ tubaa bëggee woon Moustapha sallallahu alayhi wa sallam macha allah matale na sëkk loolu moo ko jural sax ak jaayanteem ndax nit ki lu mu mënta lu bëggut du ca jaayante te Cheikh Abdoul Ahad dafa firi jaayante. ci diggante yaari wasixtuy sëriñ Tuubaa yooyee muy wasixtu bi rabbil arsi ak wasixtu ma al muxtaari mu waaye nag firil ñu baatub jaayante wax na jaayante nag ki koy def mooy koo xam ne li muy dugg duutu ca génn loolu mooy jaayante li ñu wutale ak sëñ Fallu nag seen jaayante ga mooy saxaaba yi benn doon jaayante daa mel ne àjjana lañ doon wut moo tax fastabsiroo bi bay'ikum allazi baayaxtum bihi wa zaalika huwa al fawzul sëñ Fallou bi muy jaayanteeg sëñ Tuubaa da ko tee tegulut benn sart bëggut àjjana ragalut sawara daa jaayanteeg moom ngir jëmmi yàlla ja benn intérêt amu mhm. moo tax lam ko wax mu jox ko ko lakkum bi xayri man ni mhm. amul beneen sart bu may teg ci ginnaawaat mhm. bi ma jaayanteeg yow loolu jaayante nag ku ko def mooy da ngaa engagé boo engagé nag li lay tax a jëf mooy li alquran doon wax naan xad aflaha almuminuuna allazina hum fi salaatihim xaasiuun loolu engagement lay doon boo ko defee nag da ngaa a nag pratiquer loola nga defoon sëñ Fall nag bi mu jaayanteeg sëñ Tuubaa moo ko dugal ci xidma booba lan moo xew booba moom sëñ Tuubaa nekkagut ci capital luñ mën a dundee dund gu neex toogagut benn place circonstance yooyu ci la sëñ Fallu jaayantee ak moom bi sëñ Tuubaa jógee ci géej gi rek tawfeex ji ko yàlla njëkk defal mooy sëñ ba muy dem dafa na rafiqi kitaabullahi wal Mustafa nabi ba may dem téereb yàlla bi laa yóbbaale waaye bi mu ñëwee Daaru Salaam téereb yàlla bee ko gàttandoo ci sëñ Fallou ko bind kaamilu alxuraan la la la béggale sëñ Fall la béggale sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa wax ne sama bëccëgub tey bii gàcceel na mbalam bëccëg bu ma mas a ndax daawu ma yendu ci sama sago daawu ma xam fu may yendu li ma gën a bëgg daaw ma ko am ni ma ko bëggee mhm. tey jii nag sama njaboot wër na ma ñu bind kaamilu alxuraan sama doom bind ko jox ma ko ma toog ci dëkk bi nga xam moom laa njëkk a sañ kenn bu ndoxataa lu ma ci dara ci la sëñ Fallou tàmbalee mhm. kaamilam boobu dëkkut dafa ànd ak sëñ Touba mhm. ci xet ma jooju nga xam ne moom la ko sëñ Touba def la ànd ak moom ci gànnaar ñeenti ati gànnaar yëpp mu dund ko sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Tuubaa ci la doon waxee naan waaye bala na na nux nag daa njëkk na war war rukk rukk nañ ab jaan ji maa sama mag ju baax ji sotti ci sata la nga dox firib ca ba suñ biir dëgër ñu takk kook ay ay ay banti génnal te booba sëñ Tuubaa seen baay te moom yëmu ci benn baay la am jenn nijaay la am muy sëñ tubaa sëñ Tuubaa baayam di nijaayam xitma boobu sëñ Fallou jaar ci boole kook di bind ay kaamil di jàng seen ñaar fukki isi bi alxuraan yi ak seen junniy bayit yeeg ñaar téeméer mustadak moo taxoon sëñ Abdou Lahat ne nelawi guddi ginnaaw sëñ Tuubaa lañ ko tal waaye bi mu fi naal kenn talu ko woon jukkib alxuraan lay jox muy fukki isib nga xëy ko jàng junniy bayti xasid ak ñaar ñaar ñaar téeméer da nga ko jàng boole ko liggéeyub góor bi dara du ci manqué sëñ Fallou ànd ko ak sëñ Mourou Moussa moo taxoon sëñ Mourou Moussa na leen waay lu ngeen ñu ëpp léegi sëñ Tuubaa nag bu dee da ngeen a bu ngeen muritoo ñu muritu bu ngeen bindee kaamil ñu bind ko xanaa nag daañ leen tanee mu jur ñu sëñ Fallou ànd ak moom ci loolu ba dem ci yeen Jolof ceen jolof mu boole fa jàng xam-xam ak liggéey lu fa góor di daj rek sëñ Fallou daj na ko fa foofee nag la daan bind kayitam su tuut sax di ko jaaree ci loxol way juróom wa soxna Aminta Bousso ginnaaw bu mu ñibbisee di ko wax naan ko neel sëriñ bi dama ko bëgg a yàgg na koo wax kayit wu ne mu bind nag ko jaare la ko ci loxol soxna Awa jaare la ko ci loxol soxna Aminata Bousso te booba mi ngi liggéey te booba mi ngi liggéey waaye neel sëñ Tuubaa damaa bëgg ndigal lu bàyyi koo ci man ñëw ci man ñëw jóge ci moom ñëw ci man ni mu ko joxe seex si mm-hmm. ndax dama ko bëgg a ba bisub jaayante boobu fekk ko fa mm-hmm. kon njëkk jaayante gi da doon liggéey mm-hmm. waaye liggéey bu njëkk ba bi jaayante gi ñëwee nag da ko yemaleeg liggéeyub sëñ Tuubaa bu njëkk ba ci rasulullah yi xam nga sëñ Tuubaa liggéeyam bu njëkk dafa am fu ko teg ba deuxième étape ba ñëw mu mu engagé waat beneen liggéey ba jóge ci géej gi san roofaat beneen garaat liggéeyaat beneen liggéey sëñ Fall noonu la ay ab liggéeyam demee ci yéen jolof nag ba sëñ Tuubaa woote ci jaayante googee nee na damaa jël sama kayit waaye faw nit ñi jàngat li sëñ Fallu jaayante mooy lan xam nga sëñ Gànna wax na ko léegi ci ni muy wooye sëriñ Tuubaa ci façon taggiin wu màgg woowu nga xam ne ni sëñ Tuubaa di waxee Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ba daan su ma jëlee sama xale mi gi sax jëm ci moom da ngay seen bëñu yonante bi muy mooñ ndax bëgg xam ne maa ngi koy wooyee ci turin maa ngi koy xalamal xalam gu neex sëñ sëñ Fallou noonu la ñu utilisé bu wax sëñ Tuubaa maanaam yow sunu sang bu gànjaru bi yow mi nga xam ne bunt bu tëju yaa ko tijji loolu da ko ko doon wax ci ci kàllaam ak arab waaye loolu lay wax ci baati wolof yi kii nu am kenn amu ko sunu waaja boroom baraag ba tur wu neex wu ne wooye na ko sëñ Tuba ngir bañ a jaar ci tur ba foofee la foofee lam jaay sëñ Tuba mooy doon gi sëñ tubaa doon baayam te damay wax toujours ne xaalis wala weñ gu ñuul xaalis a koy gaar mën na koo garante waaye xaalis nag moom or a ko mën a garanti waaye or nag moom. jamaa rek moo ko mën a garanti sëñ Fallou nag bi mu ñëwee xam ne bàyyi sëñ Tuubaa gi moom jamaa la waaye sëñ bi ku doon wut alal ba am jamaa man caayam mu ne sëñ Tuubaa kaama jaay la jamaa bi. ku ne bëgg nga sa baay rek sëñ Tuubaa ne ko bala ngaa am li nga bëgg dëgg dëgg dangaa jaay jamaa boobu nga yor ndax léegi feeg yaa ngi koy téye da ngay jàpp ne am nga alal mm-hmm. te jamaa bi am na lu ko gën jaayal jamaa bi. li feeg yaa ngi jàpp ne sëñ tubaay sa baay li sëñ tubaay yor tam gën lépp doo ci mën a jot mu jaay ko jamaa ba mu ne ko dese nga mbakar feggu di sa poos bi or a ci widd ko yam ak ñëpp mu ne ko or bi mooy lan mu ne ko maay sa nijaay di doo yam ci jaay baay gi da ngay jaay nijaay gi nday nit ki nday baay la am sëñ Fallou moo tax ma lim jaay sëñ tubaa daa seer mm-hmm. sëñ tubaay sama nijaay bari na ñoo xam ne ci lañ amee lépp luñ bëgg am ñoo xam ne sëñ tubaay sama baay ci lañ rawe ñëpp ñenn ñi li ci des nag muy taalibe gi nga xamante ne moo jël fuuf gi sëñ Fallou nag boole di doo nijaay jarbaatub sëñ tubaa di doomi sëñ tubaa di taalibe sëñ tubaa mu jaay ñett yooyu yëpp nag moo tax bañ ko waxee ci taalibe yi mu na du kenn waay du ma dara man sax awma far damaa jeex ci biir sëñ tubaa waaw ndax ndax njëg la jëlu ko jëlut njëgg bu ko jëloon am dara moom la sëñ gaana doon junj jëlut njëgg moo tax ma wax ne leen ma googu nag ci la ko daal dugal. lu mu ko yóbbee mbindum kaamil mu métti. fii ci ndindi. ñeent fukk yi sëñ Fallou njëkk a jaayaan njëkk sëñ Fallou ci jamonoy sëñ Touba. buñ masaa toog ndindi bu nawet jotee kenn ku ci nekk da ngay jël sa gopp dem ca tool ya sëñ Fallou jël ab uh, kayitam akub deram ak daam dem ca tool ya bu ñuy bay bu bay muy bind. bu nawet bi àggee kaamil bi àgg. mu taxan loo leen fukki say. Hmm. mattum jalambaan mu baax. defar ko bam mu tax bandang mu yan leen ko boole koog jaay gerte ga fab xaalis ba def ko ci ay bataaxel yan leen ko fab kaamil ba def ko ci jaafira jox leen ko ne leen bu ngeen demee ne leen sëñ Bamba seenub liggéey ngi noonu sama liggéey ngi nii bu njëkkee fekk sëñ Tuubaa ci njaareem mu xool ko ba noppi ñu ne ko ndaw yi Mouhamadul Fadal ñëw na mu xool liggéey bi xool mat ma bu tolloo ci kaamil bi ñu jox ko kaamil mu bàyyi lépp nangu kaamil ba wëlbati ko xool ko ndejoor ak càmmoñ daal ne xàkk sa ñu ne ko sëñ Fallou nee na ab liggéeyam a ngi noonu sunub liggéey ngi nii mu ne yéen moom ba booba kon ci xitma sëñ Fallou foofu la ci jaaroon ak Cheikh Mahmoudul Fadel. macha allah muy euh, xitma boo xam ni wax dëgg yàlla yaatu na lool lii sëñ Fallou junj itam kaamilam yooyu ñu ngi wax sax am na buñ ci doon yéem loolu kenn ci mbokk yi naan ko kaamil bii de xanaa xanaa mbàkke xar baax la mu ni déedéet xaw a dee rek waaw xaw a dee rek kon loolu day firneelaat ni sëñ Fallou jaayante gi nga xam ni jaayante woon na ak ak waajuram mu tedd wa ak liggéey bu màgg bi nga xam ni liggéeyal na ko waajuram wu tedd ba loolu yëpp nag li koy maye mooy jikko jikko yi sëñ Fallou ak sëñ Gànna ci la ñuy ñëw léegi. Euh, jërëjëf sëñ Jili jërëjëf sëñ Fallou waaw Cheikh Abdoul euh, sunu borom daf koo waajal wàccaay woo xam ne moo tax aw turam dëppook jikkoom. moom Serigne Fadilu ndax Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari ba mu koy tagg dana ko yabunul xadimi la si yoddoha bi fadilina maanaa la fadluk laa unza wala zakaw sabaxta jiilaka fi ilmin wa fi adabin wa fi fadaila lam tusol biha fi kaw laqad tanashata min samsin wa min qamarin fa sirta baxran min al anwaari tasdaxiru dane doomi sëñ Tuubaa ji ñuy woy sañ Fallu ngëneel yi mu làmboo ak jikko yu rafet yu mat yi góor amu ko jigéen amu na ko jiitu nga sa kem yëpp waaye da nga leen a ak i yoo xam ne xel mënu koo takk di root waaye laa xar wanax sosoo ci diggante jant ak weer jant bi di xaadimu rasul weer yu di soxna aw busu bayit yooyu la sëñ Moussa Ka tekki allahuzul fadlul azim ku mu jox ngëneel déefile yéem faadilu mooy fadlul xamim turam wa doy na xarnub mm-hmm. mooy doomi samsun wa xamar mm-hmm. mbakkeeg bu soobe duñ ko jar moo namp yaari weeni ngor mooy bambatee ci xarnub mm-hmm. sëñ Mouhamadul Mamoun Ñang ba mu koy tagg ci jikko yu rafet ba mu tàmbalee dana ilaa a barrin mënta sarbala libaasu izzatin fasiitu atala wala misaal ne borom tedd ngay jikko yaa ngoo nga xam ne bu fekkoon mbubb la garam mbubb buy diri ko la mooy sëñ Fall ci rafet jikko daana mooy borom turu yëkkati ko wukaay di sëñ jikko ju rafet nag la yàlla taggi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci na ko dëgg-dëgg ci yow la nekk jikko ju mat sëñ Fallou doon na ko ci lépp nam ko doon na ci melow biir doon na ko ci melow biti waykatu wolof ba dane du xotti satir du tas yaakaar du daw ku ko laaj ku laaj mu jox la nga giijal Fallou xel yu la loolu loolu doyoon na jikko du xotti satir yonent bi sallallahu alayhi wa man satara mu'minan fi dunya sa satarahu llah yowmal qiyaama te xoola sutura ni mel li tax sëñ Fallu di solution di régler situation yi xoola adduna bi jamono biñ toll xotti sutura wor nit wax lu du dëgg tas yaakaar waaye xoola te lu xotti satir léegi nga xam du ñu yem sax ci di ko wane. di ko wan di ko dañ koy wane waaw. bala noo bég loolu liggéey lañ ko jàppee bala noo bég dañoo toroxal nit wala gor ñu yàq image waaye sëñ Fallou moom du xotti seetir ak ak sunu borom ni mu ni mu ni mu ni mu tëkkoo ñooñu. ni mu tëkkoo ñi ñi xaw yi waaw dëgg wallaahi wallaahi. nga ne loolu war nga ci insisté bu baax. wallaahi jamono ji ñu toll. wallaahi moo tax mu xajoowul ñëpp. Mm-hmm. nga xam ne kenn la du xotti seetiram suturoos kenn. Mm-hmm. waaye du tas yaakaari kenn. fu waay mas a jóge mm-hmm. am na koo xam ne ba mu koy tagg ci loolu dane yabunul xadimi alladi ma xalla saatuhu aatin yuraajihi illa salla faaxatuhu mu ne sëñ Touba de am na doomam ju ndax sëñ Fall mhm. kenn du wàcc ci ëttam am yaakaar lu du amee lu amoo lu kawe sa njort kon du xotti seet du tas yaakaar du mhm. daw ko ko laaj xam nga tabe yomb na mhm. waaye tab bu neex a gis a jafe am na ko saa yoo ko gisee sa aajo faju waaye danga ko dul mën a gis ndax protocole ba sëñ Fallu nag day tabbu day tabbu yomb a gis ca xëy ga rek baa ci bi rek boo ñëwee gis ko kon du xotti seetir du tas yaakaar daw ko ko laaj ku laaj mu jox la mm-hmm. nga gii jël fallu xaddi yu la mm-hmm. gis nga jikko sëñ fallu ju rafet bokk na ci mm-hmm. bëgg yéene ñëpp mucc daana wax ne ni ganaaru jaboot di def ci cuuj yërmande ju ganaaru jaboot am ci cuujam moom laa am ci mbindeef yi daana ganaaru jaboot bu boofee ci cuuj bu ca benn sëlee bu ca ceeli jëmee na nday jay def yërmande jum ci am am naa ko ci mbindeef yi looloo tax am bis daa xëy si sëñ Tuubaa moom na ko murid yëpp a ma yónni ñëwëy ak ñi fi ne ak ñi dikkagut nee na ñi ngi lay sant cant gi mooy tawfiix gi ñu am ba ànd ak yow sëñ bi ne ko Mouhamadou Fadel de mat na ko ndax manoon na maa ñëw ba dem ngeen ñëw baa ngeen ñëw ba dem ma door a ñëw baa ngeen baa ma ñëw ngeen bañ maa nangul daan na ko ne war ngeen a sant sant googu yi war ngeen a sant ndax li tax war ngeen a sant mooy xam fa nga jëm xam fa nga jëme ñi nga àndal lu jafe la daan na ko daan na ko te nii ma sama rëdd baaraam yi leere laa xamee fi ma jëm xam fi ma leen jëme léegi xoolal ki nu fagg lool dem ba ci sëñ Touba santal nu sëñ sëñ moom ku def loolu moom sëriñ Fadil jikkoom ju rafet taxoon mësul nangu ayib kenn wax naa kilifa na ko gane si ma ko na ko mbakke ma damay sën damay ëttub sën damaa bari taq taq lool bari ayib sëñ Fallou na ko may ëttub géej boo ñëwee lu diis diig boo ñëwee lu diis diig mm. lu woyof na tong ci kaw bu duus ñëwee na ko tonet mooy dafa boole woon jikko yi nga xam ne ku ko am yëkkatiku lewet mm-hmm. toroxlu mm-hmm. tabe rafet jikko sëñ Fallou ñaata la fayal aw nit ciy bor six cent et sept cent six cent sept nangam million fayal na ko ciy bor ñaata voiture la joxe quatre cent et quelque nangam ñaata la yóbbu makk huit cent quelque nangam te 400000 la fi bàyyi moom sëñ Fallu mm. tabax jumaa ji ba noppi bàyyi fi kër goo xam ne boo ca tegee birab almel mu jeex wallaahi teg xoola jooju jikko ji rafet nga xam ne yësilu an dunya wa tibi mm. ji ak melokaanam lépp sëñ Fallu woon ko ginnaaw lépp daje ci moom moom sëñ Fallu ngir melokaan woowu mu am wuuf ñëpp xajoo leen jikkoom ju rafet tax na mm-hmm. am na kilifa gu ma nett gu nett xam nee na bu ma saa ñëw ci sëñ Fallu day yàq poos bi mu ne ko jógal fi mu ne yittee ma ko fi baax sëñ Fallu defal ko waaye nee na fa ma xamee jikkoy sëñ Fallu mm-hmm. nee na bis bi ma ñëwee di ñëwaat ci sëñ Fallu fekk mu fees keroog maag sëñ Mudu Xaban la fa dajal doomam mm-hmm. waaye nee benn piis bi mu ñu boole ñun ñaar la ko boolee ndoo ba noppi yëkkati li mu ñuy jox jox na ko daana xëy jël ñaar fukki junni joxe na waaw ñu ne ci dëkk bi te yoon yi waroon leen a yor tam doon mag te mënatunoo liggéey te mënatunoo dem fenn te amuñu doole mm-hmm. nañ leen koy jox dépense na ku ne ci xat-xat am jafe-jafe jóge feneen ñëw wax ak moom sëñ Fallu dimbali la ca loola loolu mu xajo woon ci jikkoom ju rafet moo tax mu mënee woon ak ki bokkam mm-hmm. jikko rafet taxoon mu mënee ki jàmboor mm-hmm. defe naa ci Sénégal foo tourné da nga dégg law bépp sëñ Fallou njaagob sëñ Fallou téejaanub sëñ Fallou nangami sëñ Fallou katoligu sëñ Fallou lu ko waral mooy yërmandey sëriñ Fallou jëm làmboo woon xajoo woon ñëpp moom mm-hmm. Cheikh Mahamadul Fadal yéen ñëpp aw yiw manee ñëpp boo ko xoolee Cheikh Mahamadul Moustapha tey xoolal lu mu ak sëñ moom sama mag ju tedd jii lay wax Cheikh Mahamadul xajoo woon ñëpp ñi mu bokkaloon njabootu Serigne Touba gi ci biir kenn ku nekk nam la def tey foo dugg ci biir kër Serigne Fallou koo woo ci doomi Serigne Touba mu wuyu waaye seex yi ko waroon loolu lépp jikkoom ndax mu mënee ñëpp moom Serigne Fallou kenn ku nekk mu am lu mënee woon ak xam xamuñu leen woon xamuñu leen woon ci Sénégal ndax jikko yu rafet yooyu waaw ah, rafa rafa jikko yu jikko yu yaatu yooyu mu daje woon lépp moom Serigne Fallou mhm. nekkoon koo xam ne moom Serigne fallu ci jikkoom ju rafet makaarimul axlaax day loo xam ne ci la ñuy nawee ku mën a doon nga xam ne tey adduna fii mu tollu tey bu nu andi woon jikko sëñ Fallu teg rek da nga cay fekk kilifa gu mat kilifa mm-hmm. te jikko ju rafete ko waroon mm-hmm. nee naa la du boddee du génnee du xaste du meroo du def benn sikk xajoo ñëpp seen sëñ Fallu waaye am na jikko ju gënoon a jafe mooy mën a muñ mm-hmm. waaw sëñ Cheikh Balla mu baax ma nga xam ne tuddee na ko doom yaa xafaaru dunub dafa ñëw seet si ko bis Mm. jamono dëgër lool nee na toog nañ ba yor yor ba digg bëccëg di jot dara néew ci kër mm. keroog euh, araw bi ñu am soxna bu sëjee nga ko togg laax mm. sëñ Cheikh Awa Balla yor waaw sëñ Fallu yor yor wattu Cheikh Awa Balla yor watt nee na dara dara rëxu ko nag dara rëxut laax boobee mm-hmm. ci lu ko war a neexal wala lu ko war a so mm-hmm. waaye nee na sëñ Fallu tibu Cheikh Cheikh Awa Balla tibu Cheikh ba yàgg mu ne mu sigg na ko Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko lu jiitu luy tus lu mujj luy tus parce que jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Gana mu am solo lool sax jikko yi du jeex nag du jeex euh, xam naa dañ ci toll foofu rek waaye jikkoom yooyu nga xam ni tey jii tasaaroo na bu baax ci njabootam euh, ñi jiitu te doon nañ leen sànq ni ñu meloon ci ay jikko ni ñu daan taxawoo doomu aadama yi sëñ Modou Moussa Falelu sëñ Alaaji Baara ak seeni rakk ba ci tey jii ñu fi nekk sëñ Abdoul Baraka ak rakkam yëpp Cheikh ba Bachir miy jëwriñ ba ci caat sëñ Cheikh Awa Balla noonu nga ko mën a itam ci jigéen ñi ba ci biir njabootam sax faf ku ñuy dàkkantale jikko yi moom la ñu dàkkantale turam sëñ Abdul Karim loolu lañ ciy teg makaanul axlaa kon yooyu yëpp di jagleeg sëñ Fallou goo xam ni toogul nag rek daal di koy am da koo da ko liggéey da koo liggéey jaayante sonn ci lool waaw kon loolu dañ ciy jàngewaat ni rek euh, lépp jaayante la jaayante la xidma la ñu ko sëñ bi waxee euh, sëñ Fallou fii sëñ Gana euh, toll junj na sax ci biir fi nga xam ni fa la ñu waroon ñëw ak yow muy diggante Cheikh Mor Fadal moomu ak ñi mu bokkal Cheikhul Khadim mook sëñ Modou Moussa xam nga ak sëñ Basir moom daanaka sama mag ju baax ji la daan wax ak sama rakk ju baax ji mm-hmm. ndax ñoom sëñ bee leen boole woon. Mm. tey daanaka lu ëpp seen liggéey ñoo ko àndandoo woon. lan nga nu mën indil nag rawaate na nag ci rakkam yi. gannaaw sëñ Modou Moussa fii ci Touba ni mu doxaleek ñoom. Eh, <clears throat> jërëjëf sëñ Jili eh, ma santaat bu baax eh, sëñ Gànna ñaanalaat léegi nii tudd nga borom jikko ju rafet di sëñ Abdul Karim borom makaarimul axlaax mm-hmm. ñaan suñu borom mu dolli ko wér. gën ko fa yàggal ak moom mboolem njabootu sëñ Fallou gépp Eh, sëñ Tuubaa daa waxoon Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ne ko labista siyaabal majdi wal fadli wal xulaa wa fiika min al axlaaqi maa ahjasal kulaa bayit woowu mën na si ne ko àbbu andi ko ci sëñ ni ko sëñ Gane doon waxee. tedd ngay jikko moom sëñ Fallou ko làmboo. man dafa feeñ ci fadlullahi innal fadla bi yadillahi yuti man yasha waaye boroom jikko ju rafet. moo mën a jaboote. ndax daana wax ne danaa xajoo seeni bang-bang moom sëñ Fallou te ku jaboote ci adduna ji war a mën a xajoo bang-bangi nit ñi adduna dafa bari ay bang-bang mhm. déggoon naa ku baax ku am xorom sëñ ba siise daan déedéet daana wax ne adduna li ciy xuppe day bari mhm. sëñ Talla Cissé mhm. soo àndee kilifa gu ragal nag ci xel ay xel ngeen di dëkk. dëgg la sëñ Fallou am na chef de canton bu masa dëkk fii ci réew mi mm-hmm. bu masaa banque day ñëw ci sëñ Fallou mu faj aajoom mm-hmm. su réew mi masaa lëj wala mu jaxasoo mu ñëw ci sëñ Fallou mu ñaanal ko mm-hmm. am nag lu mu xaqanteeg sëñ Fallou sëñ Fallou yónnee woolu ko ba muy ñëw mu takk ay galom yëpp yi tax ñu xam ko mu ñëw toog sëñ Fallou xoolawaay di la musal di la mosal ba noppi ragal la kat mënta am waaw xam nga sëñ Fallou daa barkeel ah. di la musal di la mosol ba noppi di la ragal mënut ta nekk lu baree baree cee nekk waras na cee mën a jànge mhm. tedd nga am jikkoom jooju mhm. maa ngi nangoo ci làmmiñu sëriñ Modou Roqee mu may nettali benn bis ci ànd gu neex mhm. jaari eh, xalifaam sëñ sëñ Cheikh Anta na sëñ bi mu nekk ci kër sëñ Mourou Moussa waaw mooy borom boobu gi sëñ Fallou mooy borom màggal gi <laughs> nee na bi mu nekk ci jamono sëñ Mourou Moussa nee na boobu sëñ Mourou Moussa quatre heures de matin lay jóg ca nee na xam naa ne une heure dana ma fekk ak moom du ma xam wan waxtu lay laal la la laalub lal waaye quatre heures de matin jure danaa jóg su ma jógee defal ko waajtaay ba waxtu jàngam jot ma indi taburiya bi ak piliyaan bi fab taburiya bi tegal ko ci fulku bi tàllal piliyaan bi sogo dem taali ataaya moom moom sëñ mu doxee boobu mi ngi tur biyu mhm. nee na ni suuti sëñ Mourou Moussa da nga koy seen mu toog ci piliyaan ba daa di ubbi ab fulkoom tàmbalee jàng ba waxtu fajar jot mu julli ko balaa julli fajar danaa ko jox kaasub ataaya bu sëlmalee danaa ko joxaat kaasub ataaya bu jant bi bëgg a fekk danaa ko joxaat mm-hmm. mu ne ma mën ngaa fat ba yoor yoor bu yoor yooree ma tàngalaat ataaya na ma ko mm-hmm. nee na am bi sëñ Fall dafaa fanaan mm-hmm. nee na ñoom ñaar ñu ne ci guddi gi di waxtaan di lakk arab yu neex di xaqtay nee na ba mu yàgg sëñ Fallu jóg fàttu ji sëñ Mourou Moustapha fàttu nee na bi quatre heures demi jotee ma jóg nag génneel sëñ Mourou Moustapha piliane bi ak tablier bi Mhm. nee na ba waxtu génnam jot mu génn bi mu demee fam ñaari loxoom teg ko ci pilaan yi bay bëgg a toog daal ne laa ilaha illallah nee na ma daw ñëw defe na leneen la mhm. mu ne mu damaa fàtte ne fi la sëñ Fallou fanaan daa di daa ne ñokke daa ma lemal ma pilaan bi ma lem ko mu ne ma maaseelal sama tànk yi ma maase ko nee mu duggaat ci biir na ma demal indi yaari romb jaan booy la romb jaan gu ne ma lal ko teg ci ab der hmm. na mu boo noppee nga dem wooye sëñ Fallou nee na ma dem tolloog bunt bi yëglu kooku waay ko mën a muudu an sa baay daa mu ne ko ah, yow yi negg na ko de mu daal di jóg hmm. daal di ñëw toog bi mu jubee ba jub basangi hmm. ne asalaamaaleykum sëñ Mourou Sane firi rido bi daal ne waaleykum salaam hmm. ñu daal di joxante ñoom ñaar seen loxo yooyu nee na ku nekk toog ci piliyaan ñu tàmbalee lakk seeni i arab nee na ma dem ci ataay ja loolu kon nga gis loolu ni muy neexee seen ànd boobu ni muy neexee loolu moo ko mayoon diggam ak njabootu sëñ Tuubaa gi ba tudd nga sëñ Basiiru dañoo meloon na ay doomi bàjjan bàyyi siikum rek la ko daan wooye jumaa ji sëñ fal da cee sonelu daana suba bisub koor la ku mën na nga woor mm. sëñ Basiru génn daaru minam xëy jaar si ci sëñ Fall fekk mu teg ataayaam nga mm-hmm. xool waay la waxoon démb mu ne ko bàyyi sikkim kat damaa waxoon ku man te man mënuma waaw <laughs> xoolal moo taxoon mu naan turum wii mu tudd galas mm-hmm. sëñ Fall sëñ mënul sàkk ko yóbbe ne na ko am ci aw yoon mag mm-hmm. am ca rak soo ci amee mag ju baax mhm. yoo xam ne li la war mi ngi la koy defal mhm. am ca rakk ju la nangul mhm. yoo xam ne mi ngi lay doxali yónneen loola war galas rek loolu moo tax boo demee kër sëñ basiiru fekk fa sëñ Fàllu ñëwee fii ci kër sëñ Fàllu fekk a sëñ Basiru kee di jëwriñu sëñ Muntaxa kii di jëwriñu sëñ Abo loolu relation bu rafet ak ku boo demee kër sëñ Mourou Moussa da nga fa fekk borom Daaru Salaam danki di sëñ Fàllu kër yëpp rek. loolu moo ko ko may boo sëñ Abdou Khadir sëñ Fallou nii tey di. sëñ sëñ Abdou Khadir dafa jàppe woon boppam ne. Mhm. moom daa amut. diirub mhm. li fi sëñ Fallou nekk daa jàppe woon boppam ne daa amut sëñ Fallou rek a amoon. daa sëy ci biiram rek. waaw daa sëñ Fallou rek a amoon. est-ce que mooy léppam. Mhm. kër gi sax sëñ Fallou ko yoroon amutoon atte ci boppam lépp sëñ Fallou ko doon atte. est-ce que moo tax boo demee fekk fa am sëñ Fallou. sëñ Abdou Lahad daana wax ne bokkuma ak sëñ Fallou baatam. ci bokkuma ak moom ndab bokkuma ak moom lal bokkuma ak moom ab jataayam bàyyee naa ko léppam mm-hmm. moo tax kere ba sëñ Fallou wax mm-hmm. da ko ne moom Touba ba noppi ma booleel la ci mbakar feggu aw mbakar feggu mbakar feggu nag ñoom ñaar ñoo ko xam ñoo ko xam kon yaakaar naa ne ànd bu rafet mm-hmm. looloo ko ko yóbbi doomi sëñ Touba ñoom ñëpp waaye boo boo leen tegee ñoom doomi sëñ Touba yi nga xam ne cër bi mu leen waroon a jox ak fi mu leen waroon a féete da faa teg mhm. da ñëw si doomi sëñ Tuubaa yu jigéen yi ndeysaan tàmbalee ko soxna Faati Dia soxna Faati mhm. bi ñuy nag bi ñuy bi ñuy defar këri Tuubaa yi mhm. dégg naa daa woo sëñ Cheikh Gaynde Fatma mu ne ana nga waay yaay mag a nga noonee yaay mag la ko daan wooye nee na yaay la mag la ba noppi mag la ndax ñoom ñoo ñu magee na leen fukki at mu ne mat nañu yaay ba noppi mag la fondation yoon wi ba ci soixante fi la ko fekk. Mhm. daa bokk ci mag ña bokk ci gone yi. fekke lépp. Mhm. dana sëñ Cheikh ana nga waay njaarim bi sëñ bi jógee Thiène Jolof. ba ñuy rëdd kër yi ba mu ne xoteet gosam. Mhm. dana xoteet gosam. bu soxna Fatou xoolal ba mu ne xoteet gosam. dana xoteet gosam. daal ko noonee rek. <laughs> est-ce que. xam boo demoon ci këyiti kër sëñ mu soxna Fatou Diagne nekk ci njaarim. 1912 a jëlee. est-ce que bi sëñ bi rëddee këram rek daa rëdd kër soxna Faat Ja sëñ Fallou foofu la nekkoon ak ñoom mhm. noonu la ko séq woon ak doomi sëñ Tuubaa ba ci caat soxna may wallaay soxna mu ne mii nga xamante ne bii mhm. sëñ Fallou mat na ko jur mhm. ndax daanaka xaw naa mat jur sëñ Ablaat ndax moom ak soxna Marema Jaxate la kon soxna sëñ soxna may mii daanaka rek ay am am am ab sët lay tolloo ci moom daa xëy bëggam ga sëñ Touba mhm. nga xam ne moom sëñ Touba daa sumbeeku ci moom soxna moom soxna May 1925 mhm. la njaareem mhm. daa xëy ne man daal sama bëgg ci sëñ Touba ni ma ci tare xasida yi sëñ Touba yi ma ma may may nab nabi doomi sëñ Touba ma koy jàngal ma di ko déglu ci sama fono bii daal di jël fonom ba wut sëñ Fallou te boobu mooy sëñ Touba est na ko ana damaa bëgg nga jàngal ma sa xasida yi xasida yi sëñ Tuubaa yii ma di ko dégg sama nopp bi ndeysaan ndax ndax daana takk ndigam la di ko jàng di ko jàng te kenn ku koy jàng ku la ko gën war a gën a jàng amut jàngal ma ko ndeysaan soxna may na sëñ sëñ Fall nag waaw léegi muñul ma rek ñii jóg waaw soxna may daal di lemi bagage am wan ko ginnaaw sëñ Fall dab leen ko waay daal di jóg leen waay daal di dàq jàngal ko xasida yam bëgg mu enregistré ba mu demee man xool leen waaye gone gu xonq cooy di la këll këll doo ko sa ñambañ wallaay xam ngeen li ma ci jubloo mm. ñu ne ko déedéet mu ne li may ragal ragal ci tooñ yàlla mm-hmm. tooñ baayam laa gën a ragal ci tooñ yàlla ñu ne ko lu tax mu ne li yàlla mën a muñ ci ko ko tooñ mënu koo muñ ci ko tooñ baayam mm. kon tooñ sëñ Tuubaa lu mat a moytul la lu mat a moytul sëñ Fallou waaw mu ngoog moo soxna may foo masa toog jotaayib soxna may yaa ngi dégg Abdoulahat Sey Gueye di ko bu bu jàngee man sax bëgg a kondi ci baa mu waat ko waaw biraasu man baara seni ba mun a àgg mun a sullu la si yóbbaatu si laaxul jëli mun a nii waaw nga xam ne ñoom seen bëgg sëñ Tuubaa Cheikh Fallou moom ah. ma mooy bëgg toog fi suuf mun ma jékkil ah. yaay ku kenn dul siis sa bàyyi ruuj mm. bay mm. ñorle mm. togg séddale moom rek moom ñam wi ñu toog di dëndale dëgg la soxna <laughs> soxna may sëñ Fallou mm-hmm. bu yaatoom boobu ci doomi sëñ Tuubaa yu góor yi mm-hmm. am ko ci doomi sëñ Tuubaa yu jigéen yi da koo sarale ndax dafa jàpp ne fu këllë rek sëñ Tuubaa nekk moom sëñ Fallou moo ko war a doxi loolu nag moo ko sóob mm-hmm. bi mu wóoree ne ñi mu bokkal sëñ Touba mm-hmm. xoolal sëñ Abdoulahi mm-hmm. borom dër bi ñu fàttali ko bëj ko démb rek moom it fukki fan ak juróom ci këram gii ci ndindi ci aliya sëñ Abdoulahi da daa njekki-jekki jóge daal rahman romb jumaa ji dem aliya bu demee laajcaa bi ubbi néeg ba yendu fa ba ngoon jot mu jógewaat fa bu ñëwee ba toll fii mu yabal ndaw na ko boo demee ne ko dañoo demoon ci suñ kër gii ci aliya xoolal ma loolu ni mu neexee nga xam ne bu ñëwee wax ko sëñ Fall da ko ba fa dara waay na lépp waaw ndax da naan lépp moo ko moom lépp moo ko moom ñooñu noonu lañ ànde woon ba ci Seex Saalihu mhm. yàlla sun borom dolli yërmande mag tawfeex ku ne xam na ne moom mhm. sëñ sëñ Tuubaa daa jëfandikoo ci moom coobareem mhm. sëñ Fallu ñëw feccli ko dëgg la sëñ Fallu ci sëñ Saalihu ci ni meloon ci bëgg xam-xam ak ni mu meloon ci soobu yoonu yàlla te du dëpp yóbbe woon na ko génn réew mi ba dem Mali xam ne danoon dem. Mm-hmm. bi ko bi ko sëñ Fallou jël li ko andi boobu booba jortu nañ ne sëñ sëñ sëñ Saliou mi waratut a nekk. waaye gis ngeen la ci sëñ. Fallou def sëñ Fallou jëfandikoo. Mm-hmm. kon seen diggante foofu la toll woon. kon yaakaar naa ne. digganteem ak El Hadj Baar rek ci sëñ Fallou la sababoo. nga xam ne jeex na nga xam ne daa mujjoon nekk di sëfooram. waaw nekk sëfooram di ko dawalal wallaay mm-hmm. maanaam ànd lu yàgg lu yàgg yàgg yàgg. dëgg la Eh, ndegete ndegete moo koy wuutu itam. gis mbirum mbirum mbirum yàlla la. loolu daa xaw a sew. waaye liggéeyub sëñ Fall la boo xam ne bu xaw a waar la. bu xaw a doy waar la waaye daal sëñ Fallu daal. Mhm. ak noonu gis nga nag bala ngaa man a am boo amee tedd ngay jikko. Mhm. balaa ngaa mën a am relation ak nit ñu baax ñi ba noppi. Mhm. da ngay am relation ak yàlla ba pare. sa digganteeg yàlla bu leerul sa digganteeg nit yàlla yi mënut a leer. nitu yàlla. moom caaxaan du ko booleeg nit. sëñ Fall daa fexe ba am relation direct ak yàlla. Mm-hmm. amul sans intermédiaire. dëgg la wallaahi relation ak yàlla. Mm-hmm. mooy lu ne sam xel yàlla defal la ko. boo amagul relation directe da ngay ñaan léeg-léeg yàlla may la léeg-léeg du may bu ngeen amee mm-hmm. relation directe yàlla sa xol lay xool lu sa ne ci sa xel bi rek mu defal la ko. sëñ Fall nag daa amoon relation directe ak borom yàlla jëf direct boobu ñu ngi ñaan bu baax Cheikh Mouhamed Fadal ñaan ko ci màggaayam boobook darajaam yu kawe yooyu ak tawféex gi mu amoon ci waajuram wu tedd wa euh, fii réew mi toll ku nekk xam nga ko waaw ñu ngi ñaan daal sunu boroom wane ci kéemaan ñëpp kenn du werante ni bésu sëñ Fallou bii dellu si dëppoo nag rañaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo tax lii am loolu ñu ngi koy ñaan bu baax a baax sëñ Gana loolu daf ñuy daal di dugal nag ci xew-xew bi xew-xew bi nga xam ne ñu ngi koy waajal incha allah. muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab sallallahu alayhi ni ma ko waxoon bi may ubbi sëñ Tuba naan xat aza fahra min xiina asra bil jismi jahra ci Ahmad Souleymane yaakaar naa ne am na bayit bu muy jeexale laylan li samaawaati <laughs> waaw waaw loolu loolu sëñ bi am na nu muy waxee wala gi xam naa ñu barkeelu ci tuuti rek daal di ñëw nag ci gën ak àddina Cheikh Modou Fadal googu nga xam ni moom la ñuy war a jeexale jataay bi mu war a dëppoog incha allah àllarba bii ñu jëm di le 10 mars incha allah. Euh, jërëjëf Serigne Djily waaw euh, xew-xew boobu day xew-xew bu rëy hmm. muy al israa'u wal mi'raj hmm. al israa'u mooy doxub suuf suuf bi. ñu hmm. jógee gi mu jógee baytul laahil xaraam ñëw baytul maqdis ci Jérusalem. loolu mooy al isra yi hmm. mi'raaj bi nag mooy yéeg gim gim yéeg hmm. nga xam ne xadabaati yasri min baxdi tuxri murimal bisri fi lan bi a xat xaasa asra xat xaasa faqra min xiina asra kon isra u hmm. foofu it dégg bi sëñ bi leeral la anta imaamu rusul xad jaa annahum talaaqaw fal israai wal kullu xad salla wane ne yonent yëpp mu jiite leen ci doxu suuf boobu xam loolu taraanga la joo xam ne sunu borom mm-hmm. da ko tànn settee ci yonent bi salaahu salaam mm-hmm. ci ak gënam mm-hmm. ndax won ko ay kawtéefa ma taxoon mu def ko subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi barak na xawlahu kon ngir li nuru yennahu kon am lu mu ko woon ci seen ay mbiram moom borom bi subhaanahu wa taala yéege ko nag ci guddi goo xam ne dem na ba kiiraay yépp dog nga xam ne amatul dara lu dox ci diggante ak boroomam mhm. ci mbir yépp su ma danaa fata dalla fa kaana xaaba xawsayni aw adna mhm. nga xam ne xoncoog ñaari xala mhm. ni ñuy jegee noonu la jege woon ak boroomam fa awxa waaw fa awxa ilaa abudihi maa boroomam wax ko lam ko wax lépp mhm. moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. nga xam ne xat baata yaxriqu tibaq mhm. nga guddi gi nit ñi nelaw ma ngay xuus di xotti ca dëndi boroomam di yéeg di wujji borom bi subhaanahu wa nga xam ne ku tedd kooku yonent bi sallallahu alayhi ku mat kooku nga xam ne moom la boroomam jagleel loolu nga xam ne ba mu yeggee fa moom it ak yamu ko xamal ci xam-xam yu mu waral xamal moom moom képp la ak yu mu war a baaxee ñëpp ñu war koo xam waaye jox ko nag yóbbal bu bi bii nga xam ne moom la ëndaale mhm. te moo di asalawaatul xams mhm. muy julli juróom mhm. nga xam ne anniversaire la boo xam ne jullit ñëpp dañu koy war di feete ngir ci la ko ko boroom joxe woon ndax mooy kennu diine muy julli boo gisee sunu borom defal Serigne Touba tawféex jooju mooy fi ne boo seetee weer woo ci nekk mhm. la ca xew rek des koy màggal mhm. waaye day amaat beneen xew-xew bu ci amaat ñeel sëriñ bi mhm. nga xam ne dana bokk ci lii tax ñu gën ñu gën di ko fàttali gën di ko fàttali waaw fi ne boo demee ci muharram gis nga tamxarit ya ca xew nga xam ne moo feeñu ci at mi loolu boo ñëwee ci rajabin gis nga fi ne te gis nga fi ne bu cay wax madatu xayral xalq min al muharrami ilantisaafil aami daa takarrumi nga xam ne ca la koy tagg mhm. bu dee ci rajab bi lahu salaati wa salaami min rajab mhm. li xat misil xijjati ni amal muntajab mhm. waaye tey jii boo ñëwoon tey ci gàmmu da ngay gis ne la ca xew weer wu ci nekk rek sunu borom defal ko ci ngëneel weer wi ñu demal saabaan gis nga la ca nekk nga xam ne nisfu saabaan bi la ca xew ak nga xam ne li ci xew at mi yëpp daje gi nga xam ne suñu borom la ci dajale mbir yu bare bari mu xew gis nga la ca tombe nga xam ne sution lañ koy màggal daarul moxti mm-hmm. muy bisum mbégte mm-hmm. boo xam ne sëñ bi la cee gisante ak borom daal mm-hmm. waaye rajab kazu rajab bi ñaar fukki ak juróom-ñaarit sëñ Fallu fenc nga xam ne euh, daana wax ne ku tedd dana lay mën a cëpp xam nga loolu dañuy wane sëñ Fallu ngëneelam ndax benn rajab gi mu feeñ ci asxurul xorom la bokk ba ca topp bis bi mu feeñ moo gën ci bis yi ndax sayyidul ayaami yowmal jumaa mhm. feeñ ci dëkk bi nga xam ne moom la sëñ bi jëkk a sañcit muy daaru salaam waaye weer bi muy feeñee am lu mu correspondal mooy dafa dajeek sëñ bi di sañc dëkk bi di Touba. Mhm. ca xaama wasasin la feeñ fa tuubaa am na ñu naan daaru salaam la booba mhm. ca mooma at la mbër ma génn daaru di sañc Touba ñëppi waaru waaye bi mu feeñee jamono it kon loolu doyoon na ngëneel muy feeñee daaru salaam feeñ ci weeru rajab sëñ bi joxe ndigal kere bi mu feeñee rek ne buñ ko jox toqantal te buñ ko nàmpal nga xam ne moom kon moom dafa woor woor bis boobu nga xam ne ngënee li bis bi ci woor koog ah, ngënee li bis bi li ci xew ak mm. yépp fadlu googu da ko ëndaale muy sëriñ fadilu mm-hmm. mu nekk kon bis boo xam ne mm-hmm. boo koy maggal yaa ngi ciy dajee wenn saan la boo mm. xam ne jam na ñaari picc mm-hmm. ndax defe naa anniversaire julli fàttaliku ko màggal ko mm-hmm. lu am solo la mm-hmm. ndax jaamu gi lay tax a jege sa borom waaye ku tedd kii ci teew feeñ nag mm-hmm. Cheikh Mamadou Fadel nga xam ne ngëneelul yàlla la ci kaw suuf nga xam ne ñi yàlla dénk nga ngëneel ñëpp xam nañ ngëneelam li sëñ Mouhamadul Mamoun Niang di wax ne man waddahu odda min al axyaari wa man jafa odda bil axyaari nee na saa yoo bëggee sañ Fallou rek bu ñuy lim gaay yu baax yi man lañ la ca boole waaye boo ko noonoon nag leneen <laughs> defe naa am na ci naar yi ku doon wax loolu yi di wax ne biidan wa suudaana hmm. fa man lakal yow ma fiital fadli xaddaana yow sëriñ Fallu hmm. da ngaa gën nit ñu weex ñi ñu ñuul ñi sa ngëneel daf ko làmb hmm. daan na ngëneel lii nga làmboo daal gisuma kenn ku la ci jege daan na fa akdabul fa akdabul xalq man qad zalla yazaamu an raa lakal yow ma mintal xalqi axdaana bu noonu laaj ki dàq wax lu du dëgg mooy ki nga xam ne bëgg naa gis ku mel ne yow Serigne Fall maanaam ki lay wutal ndend waaye ca biir nag dafa wax ne Serigne Fallu de ñi nga xam ne ñooy borom wilaaya yi ak borom xam-xam yi ak borom kawe yi koo ca laaj danaan la Serigne Fallu nu kaw mu ne waaye yéemu ca it boo demoon tey laaj wa intasal anhu arbaba saqayi taqul xalifatu cheikh yowma baddi asqaana nee na way tab yi ñu dàq tabe ci àdduna boo demoon ba ci ñoom ne leen waaye yéen loo xam ci xalifa sëñ Tuubaa bi di Sëriñ Fadilu nag danaan nun de ay tab lañ waaye sëñ Fallou nu gën a tabe nag gisul ku mel ni moom wa intasal anhu man yaddil uluma taqul xalifatu seyxi lam tunkiru addinaana nee na ñu ëpp xam-xam mm-hmm. boo demoon ci ñoom di leen laaj ne leen man de sëñ Fallou laa leen di laaj mm-hmm. nee na danaan la ñun ñëpp de xam nañ ne ci loo amul sikki sàkka mm-hmm. sëñ Fallou nu raw ci xam-xam ñun ñëpp waaye bi man yudaahihi juulan lam yajul zaman abraahu lil xalqi rabbil xalqi azmana nee na bu doon da ngay wëreelu ñu ne looy wër nga ne damay wërub tab bu mel ni sëñ Fallu nee mu ne la man ngaa teel a noppalu de ndax tab bu mel ni sëñ Fallu amul ci kaw suuf kenn mënu koo gis kon yaa faadilan fadalta arda sakanta biha jami hadil ardi arzaqan wa sukana man kaana misluka fi hadi zamani wa ma xat xiltahu qablu fi maadihi xat xaana amul ca ñëwëy ñu ci mel ni yow sëriñ amut it kenn ku mel ni yow ci ñi fi ne nga xam ne ko sam kem yow Serigne Fadilou amut ci wenn melokaan lool it defe naa sëñ Moussa Ka am na lu ci wax dane falil fadil fadlan fala yubaha laxat xajja wa labba wa zaarataha sëñ Moussa Ka ne sëñ Fallu dajale na ngëneel yoo xam ne kenn ku koy jege amul ci ngëneel yooyu na ko aj nga siyaare nga rasulullahi sallallahu alayhi wa hmm. daan na ko nag fadaayil yi sëriñ fadilu ramoo jaam mm. amul cam su ko lamboo ci yoonu lislaam mm. daan na koy ca xar baax ya fi seex bamba daan xaree baax mm. la seex fadiluy mbakkee xaraate ay baax loolu ko sëñ Moussa Ka wax xar baax yi sëñ Tuubaa daan xaree baax euh, sëñ Moussa Ka nee na ca la sëñ Fallu daan xaraate ay baax sa xam-xam bi nga lamboo xëjul ci ay saar ku déggoon li ma wax xam na yaa di muxtaar nga xam ne kon sa xam-xam kenn mënu koo xam kenn xam lu mu toll fuyudaatuka fadda liman laanu ayaa bahron ulumi liman daanu say bëbb day wal wet gu nekk yow sëriñ Fallu ngir sa bëri xam-xam ak sama melokaan mu ne ko nag euh, lewet doom te ànd ak di doomi jàmbaar mhm. nasor ruu yi te wommat ne daal di jàmbaar nga xam ne kon yim dajale sëñ Fallu mooy ngëneel yooyu melokaan woowu kooku daal mooy Cheikh Mahamadou Fadil sëñ Jili incha allah jërëjëf jërëjëf sëñ waxtu yi sax moo ñu kii waaye wax dëgg yàlla kon daanu gën a xuusaat bu baax a baax rawatina nag ci témoignage yi nga témoignage yi nga xam ni ci nga tolloon ndeysaan euh, ñi ngi fàttaliku bu baax itam lu mel na way yi nga xam ni sunu yeneen mbokk yi nga xam ni ñoom la bokkal réew mi fii mm-hmm. muy tarixa yi fi nekk yëpp ndax alaaxa gi nga xam ni amoon na ci diggante Cheikh Modou Fadal ak euh, euh, lislaam gi yëpp tabam googu itam lépp lu ñuy defal lislaam ba jamono yi weesu rek bi ñu génn historique gu grande mosquée ñi ci daan joxe kenn ëppale wu ci woon sëñ Fallou te da koo saxaloon téeméeri junne yi ba nit ñuy ubbee grande mosquée gi ci Dakar tey ji kon loolu yëpp euh, dafa feeñ bu baax ci liggéeyu sëñ Fallou ak euh, ni nga xam ni noonu la taxawe woon ci réew mi sëñ Fallou ren nag ñuy màggal màggal gi ci contexte bi nga xam ne moom la àddina bi yëpp di dund muy mbas mi nga xam ni moo fi am te ku si nekk xam nga ni lii kenn du ko fomm ndax lii ñu wax ni moo ci daje yëpp jullit bu nekk dundal ko da lay yokk ci zahir yokk la ci baatin waaye nag am na sart yoo xam ni moom la sëñ Muntaxa yee salaat ci sëñ Abo Baraka ñu jox la ko nga fàttali ko ndax bët ki démb rek bi ko sëñ Mutala di soññewaat di woote yow yaa ko doon jottali sëñ Fallou bu ko defee ñu tëjee ko jotaay bi. jërëjëf sëñ Jili ma santaat baax sëñ Gànna ko xam naa daa waroon di continuer rek moom <laughs> da lay dañuy wax ne naan guy doon doole mar lay doon. ñu ñaan suñu boroom yàlla na ko def uh, ak wér. sàmmal ko aw làmmiñam ko dënnam. Mm, mu yàgg di bégal murit yi. murit yi di ko bégal. ñuy ànd di bëgg ci e, di santaat bu baax a baax borom sëñ Ahmad Badawi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi. Mm-hmm. te ko. Mm-hmm. di jëwriñu sëñ Abo. waaye di jëwriñu kër di di di di yore communication bi. ci ndigalul sëriñ Abdou Fatah. Euh, ak Cheikh Mahmadul Bachir. ñu boole ko ak rakkam sëriñ ñu boole ak Balla ak ñim seqal liggéeyu kër sëñ Fallou gépp euh, di santaat bu baax a baax sëriñ Abo Baraka. di ko ñaanal yàlla. waxoon naa ci benn jataay sëñ jiiri. Mm-hmm. ne ku laaj. te yor njariñ dañ koo war di jox ku dul laaj te yor njariñ dañ koo war di jox ndax fetal gi balaa mën a jam rab bi daa am bal mhm. soo amee na bu mën a jam te seen rab woo xam ne bu ko jamee ñëpp regg mhm. yorut bal nga seen muy làmb poosam lëggën te bañ naa wax ba rab way daw yow boo amee bal dawal jox ko ndax su ko jamee nga am dawal mhm. sëñ boo ab daan na la wax sëñ boo ab daan na la mhm. ab daan na mooy ko mën a jàmm dëgg la ci sëñ Fallou mhm. ab daan na la ci Cheikh sëñ Fallou bañ ko nee koy roy ci taalibe mu ne Cheikh Ibra koy roy ci muñ mën a suuf mhm. kon Cheikh moom doon roy ci ak taalibe moo ànd nag moom di sëñ kon ab daan na la bu mën a jàmm seen rab wu rëy woo xam ne boo ko jamee jaw fal faraa lay doon ñëpp danañ regg est-ce que rab woowu nag moom waxu ko waaye man xam naa rab ba <laughs> est-ce que est-ce que sëñ ko xamuk bëggam hmm. boo laaj yoon yi ku ci xam bëggu sëñ boo kenn du la tontu de boo moytu man am na xam naak bëggam hmm. bal rek ko dese suñ bëggee réew mi ti saaroo xiiwal yi baawaan hmm. bekkoor bi jóge fi. nañ ko yot bali. nañ ko yot bali xam nga bali lan mooy lan. Hmm. na jumaay Padoa àgg. mosoo dégg kum ci laaj. wax nga te benn fondation boobu la am. wax nga dëgg de. lum lum bu dee tukki lum am ci lañ koy def. lu ko fàllu yu jox ci la koy def. lum dajale ci la koy jox sëñ Abo talu dara. genn bëgg gëm googu lañ xam ci sëñ Abo. te jumaa ja di muy jumaa yi sëñ Fallou gis nga Padoa buñ dajalee la koy defar jox ko sëñ Abo barke alxuraan réew mi neex ab daana la bu mën a jëm koy dégg man maa wax li fàlloo ko wax di man maa wax ne. waaw sëñ Fallou yaa ko wax wallaahi man maa ko wax. gis nga bàyyam moo taxoon fii. xam nga mm-hmm. yett la réew mi jàmbat. Mm-hmm. mbas mi. Mm-hmm. ñàkk gi. seenoo fii ci télévision bi. bitig yuñ tooñ nga seen ay mag yu gàddu saakob ceeb daw. wallaahi jaay wuñ ko dañoo xiif. wallaahi la. ñenn ñi àdduna su naqari. dëgg la. lu sëñ Fallou waxoon famine mustakin jël. baat ba rek famine mustakin balan. wa min mustakin daynan mhm. wa min mustakin rek ñii moom balaa bi la waxal ñi ragal balaa bi muy muy muy muy muy corona bi wax leen nag sëñ Abo borom jamono ju naqare ji mhm. nga xam ne ñëpp moom la ñuy jàmbat mhm. nañ wax ak sëñ Abo ñi tawatoog ñàkk nañ wax ak sëñ Abo barke alquran buñ ko àggalee jumaay Padoa jee ñoo xam ne kat mooy sëñ Abo maa ngi séntu ñëpp ñu ñaanal ñëpp jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu gën a sàmmonteeg itam mesure barrière yi waaw loolu moom sëñ Mourtala wax na ci waaw xam nga mesure barrière yi xam nga corona bi mhm. sëñ Mountakha dañ cee yay la bu yàgg te dégguñu ko li may naqari nag mooy mhm. li may wax ne dañ doon waroon di bind discours yi sëñ mu sëñ Abdou Lahad yi niñ doon def di ko firi ne lañ waroon di bind discours yi mhm. sëñ Mountakha day junj bi mu fi waxee ne corona ab jaam la bu ñuy yónni rek sëñ ji la rombat na ngaa ko am corona te wàllu la ko. dëgg la sunu borom a ko yebalut ci yow. dëgg la ba tàyyi kañ wallaahi. sëñ Tuubaa ba muy cëppeelu ci sa wara sa mm. ca ca ca. Euh, ca déedéet ca déedéet ca pantrem ba ca rabbu yi jam ya. waaw waaw Dakaaru isa sakartu saalik benn tànk mu njëkk bi. rabbu ko jam na ci. Ah, ba génn ci der bu ñuul bi mu dugg. mu xam ne rabbu gii suñ borom ko digal. waaye bu ko newoon bul ko jam du ko jam. sëñ Fall ne rabbu sëñ Tuubaa ne rabbu du jamee. Mm. sawara du lakke. dëgg la ndigalul yàlla lay am. fa beneen tànk ba dugal ko ci rabbu ya mel nay wëttéen ibrahima kambam nga sawara sa doon barax mais bardan wa salaaman xoolal tàkkal la ko wax muy tàkk mun na tàngaay kaay yàlla a foor dëgg la dafa na sawara fa bërëxal yow mm. tàkk-tàkk moom bul am fooy yam mm. mais yow tàng moom maa maa la ah, moom kaay mu mel ne climatiseur ci biir <laughs> jërëjëf kon balaa bi moom loolu la mm. sëñ Fallou ko doon ñaan yàlla mu jóge fi mm-hmm. li nga xam ne wax nañ ne moo ciy musle mm-hmm. mooy takk ay masque waaw naka ñëpp fonk del takk sa masque. waaw rawatina ñuy màggal si ak di dem ci yore si gant sax yor ko. waaw. Mhm. na di. dëgg la ci masque bu dul dara itam. Mhm. ndakaaru génn moom ku fa jaay masque moo ndax mhm. lee ma gis si sawara. ak saxar moom masque yee ci mën a musle ndax moom daa daa xew daa weex. ci bakkan waaw bu xew bii masque baax na ci kon dee leen takk ay masque jërëjëf dee leen dee leen laal ci sel yi. tey sabab lu nag. waaw ci wàkkiirlu ci yàlla. jërëjëf sëñ Fallou. ñoo ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu jërëjëf sëñ Fallou. sant nañu bu baax a baax eh, sëñ Gana Messere Maxtaar santati nañu bu baax. xanaa bu fekkee am na kàddu yooyu tàggatoo. sëñ ah. sëñ sëñ Modou Xabaan. waaw la sëñ Axma yabaloon mu waroon a teewe jataay bi. waaye xam nga fii ñu toll. waaw eh, turoon soppay sëñ Fallou yi ak daayira yi. kër gu ne mënoo faa. mënoo borom kër gu mënu koo génn. dëgg la ndax mbooloo mënut a jëm si ci yow ngay génn. wallaay ñoo ngi xamal ne jataay bi moo ko waroon a jiite. di jaajëfal Baye Cheikh Awa Balla ma nekk Ndakaaru. moom it ca plateau yi ñu war a def moom itam waaw ah, kon ni waaw waaw jaale itam euh, sëñ Chérif am taxawaay bu ràññeeku moom ci njabootu Cheikh Mouhamed Fadal fii ci réew mi ak euh, bitim réew waajuram wu jigéen soxna tuuti si la jóge fi bu yàggul ñu ngi koy ñaanal bu baax ci barke bés bi nga xam ne ci lañ jëm sunu borom wane la ko ak Cheikh Mouhamed Fadal moom doon liggéeyal ca barsaaxu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy ñaanal itam sëñ Cheikhouna mu sëñ Mor Penda mu euh, sëñ moo soxna mu maam borom saam moom it sunu borom wane la ko ak maamam yu tedd ya ak soxna May. mu sëñ Modou Fatick Xarit ndeysaan moom ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax sunu xarit Amadou Diagne mu sëñ Fallou mu sëñ Choy bu moom it rakkam ji faatoo Italie ñu indi ko fan yi denc ko moom ñu ngi ko koy jaale bu baax a baax sunu euh, goro boo xam ni itam sëñ euh, Fallou si la bëggoon lool sëñ Fallou ñu ko waaye mu bëgg ko doon ko itam muy sëñ Galas moom it nekkoon fale ci Amérique mook sama soxna su mag ñoo bokk ndey ak baay moom it jiitu ji. ñëw yàggul tuuti rek mu noppalu moom it ñu ngi koy ñaanal di ko fasaale ci bés bi sëñ Gana yéen kàddu ngeen di tàggatoo jërëjëf xanaa di dellu di ñaanal sëñ taxaa mm-hmm. di sant bu baax sëñ Ahmadou Badawi mi nga xam ne moo ñu boole ci liggéey bi ak ñu mm-hmm. ko seqal ñëpp mm-hmm. sant sama nijaay sëñ falu Galas di la jaajëfal yow bu baax di sant it di sama wenn wóolare woo xam ne moom it mhm. eh, bi ñu wéegee jataay bi muy sëñ Omar Ndiaye bu sëñ Mor Ndiaye Bata mhm. ane mooy borom pësief moom dane moom plateau bi faw maa lay jox mbub mi ngay sol muy li ma sol maa ngi koy sant baax di ko ñaanal di mhm. leen jaajëfal yéen ñëpp di jéggulu bokk yëpp di ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm ci réew mi mm. te yàggal fi suñu kilifa yi te balaa bi fi nekk suñu borom jëlee ko fi ci barkeb Serigne Touba ci barkeb màggal gi barkeb Sëñ Fall amiin jërëjëf sant nañu bu baax a baax sant euh, sëñ Fallou ni ko sëñ Gana waxee man mii sa jigéen sa xarit bi soxna Mouminatou Kébé mu Alaaji Babacar Kébé Ndiouga nga xam ni mbedd mi liggéey yoon ci laa jaar léegi bi may ñëw mooy xàllu alaaji Babacar bi Njuga bi nga xam ni weer bu nekk nga tudd ko ndax bu ñuy seenu weer bi sëñ Fallou Gala si la danaan ñu ngi jàkkaarloog xàll wi muy nga xam ni mooy xàllu alaaji Babacar bi Njuga moom it digganteem ak sëñ Abo ñu mën ci seere lu baree bare taxawaay bi nga xam ne am na ko ci sëñ aboo Abo Baraka am ko ci njaboot sëñ Tuubaa gi yëpp waaye nag sëñ Abo da cee raw sëñ Abo itam def ka muy doomam màggal gi itam mu ci am taxawaay bu ràññeeku ci njaboot sëñ Fallou bërki démb rek sëñ Ahmadou Bari yu def ma ni santal mu bu baax soxna Muminatu Kebe jële naa sax ci màggal euh, sëñ fàllu gi waaye ci yëngoom ci yoon wi yëpp kon moom it ñu ngi koy sant di ko seeral ndax xam naa ni yéen ay soppeem ngeen xam naa ni ngeen demee moom ba tax na ñi ngi koy ñaan di ñaanal itam bu baax sëñ Ablaye Tage mi nga xam ni liñ naan dooley jën ndox moom it euh, sëñ Saaliwu boole leen mu nangu ko lool nangu cee mu jaral ko lu nekk itam yàlla leen yàlla yokk mu musal leen sant bu baax sunu ñaari gaay yi sëñ Fallou Sylla ak euh, sëñ Talla ak mbooleem ñi nga xam ni jàpp nañu ci réalisation émission bi nga xam ni sunu ñaari télévision yi ñoo ko seq muy làmp Fall ak euh, TFM sant santaat bu baax sëñ Aliou Thioune waaye santaat bu baax itam euh, président Youssou Ndour ak sunu directeur Alaaji Ndiaga Ndour sant ñoom buubaak programme Birane sunu directeur général moom it feddaliwaat sunu njaal ci moom jigéenam ji mu bokk ak benn waajur noppalu bu yàggul rek tàntaam moom it ñu ngi ñaan sunu borom may ko xolu muñ bu baax a baax ndax waajuram wu jigéen bi mu fi jógee yàggul te yëgoon nañu ngërëmu waajuram wu jigéen mm. waaw teraanga yi mu ko mujj defal ka doon toppatoo teraanga ga di ko yóbbu sax seereel na ma loolu ci waajuram mu jigéen ni yóbbaale na ngërëmam loolu nag doy na sëkk biraan kon ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax xolu muñ sunu borom eh, yàggal la fi nga yàgg leen di ñaanal bu baax a baax sant bu baax mboolem ñi nga xam ne doon nu seetaan eh, fii ci Touba incha allah bésu màggal ga àllarba bu ñu ca yeggee itam jombul daanu amaat yeneen yuñ leen jëlal fii ci tubaay yoo xam ne dana jàll ci télévision bi di ñaanaat bu baax ci réew mi jàmm bu baax a baax di ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu zidna yaa fataax kulla yawmin sahadatan wa bashir xawmi sëñ